bismillahi rahmani rahim alhamdu walshukru maan lillahi ala nabii waladi abdillahi mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ndokkeel baax Abdou Khadir Mbacke radiyallahu taala anhu wa di ñaanal Cheikh mustafaa mu yàgg fi loolu te waxtu wi dafa xat te wolof dafa wax ne ndimbal na ca fekk loxol boroom ba tax na ñun duñ guddal insha allah ba mu déggee ñu ne ndimbal na ca fekk loxol boroom dafa ne sama caaya ji ba muy lakk genn wàll gi maa ko fayal sama bopp ñuy waxtaan ci jikko ku ñuy wax Ahmed Sawqi ndax li sëñ Fàllu doon waxtaanee dafa doon lu am solo al asmatul axlaaqiyatu a waxu loolu a Seyfu Abdou Khadir namu maanaam lim doon waxtaane mooy kirisu kirisu jikko lan moo ko sabab ak lu koy saafara mu jël sëñ Abdou Khadir def ko référence waaye ku ñu wax Ahmad Sawxi dafa waxoon ne fa innamal umamu axlaaquma baqiyat fa in humo zahabat axlaaquhum sahabu nee na askan yépp a ngi taxaw ci jikko ju rafet waaye saa bu jikko ju rafet amatul rek dara desatu fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne albir xusnul xuluq nee na baax du dara lu dul rafet jikko te moo dal suñu waajee toog di seex Muhammadul Moustapha moom seex Abdul Xaadir benn booy dañ ko ne booy bàyyil paa bi ngay dóor mu ne dóoruma paa jikko ji lay dóor dóoruma bi jaaw bi de jikko ji lay dóor waaye kenn mës a gis ci àdduna gaynde gu jur bukki te sëñ Abdou Khadir moo doon jaamub yàlla boo xam ne yàlla dong lay jaamu waliif leneen du jaamu ku dul yàlla ndax ku ko xam miin nga ci ay waxam lu dul yàlla ak neen la lastu aqaaf durra xalqin bahdama fawattu amriya ila rabbi sama ku sa bàyyi wax loolu ba muy sanc bustaan da koo sanc ñaanal taalibe yi ne warañ woon leen ginnaaw leen lu dul yàlla ak neen la di jaamu yàlla ba bokk ci jaam ñi nga xam ne saytaane mënalul leen dara ndax yor dara lu saytaane soxla inna ibaadi sa laka alim sultaan mu am ñaari baat yu am solo ci faatiha kuy julli di ko wax sëñ Abdou Khadir moo ko ñëpp dañ koy théorie sëñ Abdou Khadir ko pratiquer ba di mu fi jóge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla yow képp képp dong rek lay jàmm yow képp rek dong laa yaakaar nga dimbale ma sëñ Abdou Khadir ko pratiquer ba ni mu fi jógee moo tax nag mu am nihmal abdu innahu awab abdul Khadir ka ismu waaye ka maqaama neex nihmal abdu innahu awaabu ku dëggu ci ay waxam la woon ku dëgg ci ay waxam ak ci jëfam du wax mukk ci aw làmmiñam lu nekkul ci xolam billaahi wal kitaabi du wax mukk li bari léegi nag ci jamono ji da ngay jàkkaarloog nit mu di la ree mu di la ree fekk ne maanaam li sëñ Mbay Jaxate wax ne maanaam euh, ñoom de nafiq na mu mel bokkul ak na muy mel ayam wa day na ci biiram te yiw wa nekk ca kaw booy wax muy a bandaa ñooy nuru ku mu saf te xam ne say wax a ngi mel ci xolom ne ngelaw sëñ Abdou Xadir masta wax ci làmmiñam lu nekkul ci xolom masta jëf ci ay cëram lu yàlla taxul masta jëf ci ay cëram lu yàlla taxul moo tax yonent bi ne alaykum bi sidq fa inna sidqa yahdi ila al birr fa inna al birra yahdi ila al janna wa ma yasalu rajulu yasdaqu wa yataharra sidq hatta yuktaba inda allahi siddiqan moo tax nag kooku farata ci ñu ànd ak moom yaa ayyuha lazina amanu ittaqullah wa kunu ma sadiqin nangeen ragal yàlla te ànd ñi dëggu sëñ Abdou Khadir dafa dëggu sëñ Abdou Khadir Mbàkke ku bari wër yërmande ci jaami yàlla yi Babacar Kébé Njuga daf ko jox million ne ko nañ ko defaree terrasse bi mu toog ba yàgg mu ne waa million ci nawet bu gàntu bii benn ërin amut nga def ko ci ciment ak suuf jaami yàlla yi def nañ ci ñett fan la ko séddale ba mu jeex ku ko gënoon a tabe yàlla bindu ko ab banque la woon trésor la woon am sàq la woon ci miskiin yi ak jirim yi ak baayo ak moslukat yi waaye nag bu jox day ree bu lay jox dalay jox ba noppi di ree lu jafe day làmb ci poosam di la jox ba noppi di ree moo tax sëriñ Modou Mamoun Niang mu baax mi ne ko latifun waaye bal raxufun bal raximun faxara bi xufaati wa bil xuraati gaa yi daan daa ñaayu amuñuy dàll ba noppi te amuñu lu ñu sol ci rafle xam nañ kan mooy as Cheikh Abdou Khadir Mbacke radiyallahu taala anhu wa arda bu lay jox day ree ku bëri yor yërmandi ci jaam ñi la ku mënoon a muñ la te wàkkirlu ci yàlla ndax yonente bi dane law na a annakum tatawakkaluuna ala allahi xaqa tawakkulihi la rasaxakum kama yursaxu atayru taxadoo ximaasan wa taruuhu bitaan yonente bi ne su ngeen wàkkirlu woon dëgg dëgg wàkkirlu dinaa leen yàlla dina leen wërsëgale ni muy wër wërsëgale njanaaw moo tax benn waaye daa ñëw ne ko Mbacke man de téeméeri junni laa soxla te xamul aw turam sëñ Ilimaan lay wax Mbacke téeméeri junni laa soxla ñaa fa nekkoon ñëpp ne kii xanaa yaram bi dafa naqari jugal fi ano lay wax nii sëñ daam bosa ne ginnaaw waxut ak yéen bàyyi leen ko ki muy waxale ngi toog di ko dégg sëñ mi ne sëñ daam bosa mu naa mu ne kii de ku yàlla sama borom mënta teema faj aajoom ah lazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaat ma wa anfiqu mimma rasaqnahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaaratan lan taboor ñooñu ñoo am ñoo ñoo jaay yàlla lañ amoon ci marchandise yàlla jënd ko te lambut ñooy jàng téereb yàlla bi di julli waxtu juróom li leen yàlla wërsëg la ñu di ko jox waaye suñu jàmbaar ji toog doonu na ko boo ko fekkee Tuubaa naar yaa ngi nii waa gedee ngi ñëw waa surraa ngi ñëw waa isini ngi ñëw am na ci maire boo xam ne bu tayee mu ne ko Bousso laa sant boo légee mu ne ko Mbàkke laa sant boo légee mu ne ko Fall laa sant boo légee mu ne ko neen laa sant sëñ bi moom lijjantiwut nu sant waaye nu mu sant mu jox ko sëñ Abdou Khadir dafa dugg ci saxaar waa ji dagg tike xam ne doomi sëñ Tuubaa mu tëb ko mu ne ko ana sama bos mu ne ko mbàkke dama ko addiyal mu ne ko déedéet bul mooy yàlla di ma ci dugal booy joxe addiye da ngay bàyyi bañ fay la weer nga jël ci addiye jox ma ko mu dagan waaye lii ñu lay liggéeyloo sañoo ma koo jox sañu ma ko jël ma ne wax jee bari rek wax jee bari rek maqaamam jaylaane sa tàmputeel peeñ te karaamay tiijaane sa ban wi ngay xeeñ maqaamam junne yi déeg booti tay foor ci sa raw nga ko làqoon tax taxti laa foor sa mbootum xalimaa raw da buusu Muusa sa way dee ya nga dekkal te woon na Isa moo tax Abdou Khadir Jaylaani miñ ko tuddee moo wax ne su mursutoon yàlla fay sawara sëñ Abdou Khadir ñëw di ko pratiquer moom ku ko gis texe kum jullee nga texe ku naanu ñaanam texe kum xool nga texe waa ji ne ko Senghor nuyu la la mu ree moom xamul lu ma rësiq ak Senghor ah Senghor moo la ko waxa mu ne ko damaa bëggoon nga ree rek mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damaa ne koo ree mu tex mu ko jaru ko ak ku ma gis ak ku ma gis mën naa waxtaan ci moom nag ba fajar ndax Moodu Maamun Amar mii dalal ci rajo Sénégal international une heure de matin la ñuy tàmbali ba cinq heures sëñ Maguette Diouf mi xam ne ne ko fa dem te amoo ay bagage bala ngaa dox quinze minutes jeexal te maag moom ñoo koy joxante ba may jeexal sëñ Lamine Diop mi nee ma ñi mel ne yow de bu ñuy waxtaan ci sëñ Abdou Khadir ñëpp danañ xam kat mooy ku dul Cheikh Abdou Khadir da daan wax ne su ma xamutoon sëñ Touba ñu ne ma kii mooy doomi sëñ Touba muy sëñ Abdou Khadir man naa ci xami sëñ Touba muy sëñ Omar Fall kon nag sëñ Abdou Khadir Euh, daawul damoo xar baax li xew léegi nga xam ne ab sëriñ ba lañ koo gëm dañ naan daa xotti weer week daa ferenkulaay ci jaww jeeg daa taal jaww jeek nangam déedéet daawul damoo xar baax te ku amoon ay xar la mooy sunu waa ji toog saa boo ko diisee dara danaan ñu ñu ñu ñu diis ko sëñ Tuubaa rek saa boo ko wayee di sant danaan loolu sant naa ci sëñ Tuubaa wallahi asim saa boo koy diis soxla danañu diis ko sëñ Tuubaa lu yëg ak lu mu yëgut du ñu yem saa boo ko dee woo di sant mu ne nu santiku sëñ Tuubaa du ci gis boppam mukk mukk mukk te mooy nañu am xar baax lañ nag sëñ Abdou Khadir sëñ Lamine mi xam ne ne raay na ku gumba mu xool foofu la xar baax mën a yem ku gumba raayi ku gumba ñëw waa ah, njaxateeg may dégg raayi na ku gumba mu xool mas ngeen koo dégg fenn te saa boo ko masaan wax mbàkke dañoo bëgg nga dogal ñu mu ne déedéet ñaan képp lañ am moom la ñuy def de waaye ndax saa boo fexee mu ñaanal la rek sa aajo faju sëñ Abdou Khadir lu mu mas a ñaan lu mu mas a ñaan rek nangu na lu mu a ñaan nangu na benn bis kilifa gu baax da ko laaj ne ko mbàkke dañuy gis saa ñaan benn loxo rek ngay tàllal mu ne daan na du mooy tiiral dalit li tubaab di wax tiiral dalit koo xam ne buy viser du mooy buñ ne ko mbàkke li tax ngay tàllal benn loxo mu ne daan na du mooy yaa ibnu xaaliya na ngeen di daan na te bañ di góor a woo donn naab daan na damaa wóor ne donnu fetal cib daan na te mënuloo jam du la teere yerew yenn sëñ am Moustapha nag doon wut fetal ci daan gi waaye dafa dem sëñ sooy bu jàngal ko nu ñuy diire ba mën a jam sëñ Saliou jëmbat ko sëñ Mourtala suuxat ko yaa ngi dégg wax sëriñ Saliou toog ci keppaar gi moom du mooy waaye nag saa boo ko santeek ñaan yàlla ak sëñ Tuubaa képp la ñuy ñaan la lay wax te saa boo koy sant mu ne la maanaam yàlla nañ ci sant sëñ Tuubaa kon loolu mooy li ma bëggoon a indi xam naa li ma bëgg a wax bari na waaye bukki bañ ko ne gerte ak suukar ak cere loo ci bëgg dane muraake wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Lam. gàtt na waay am na solo gàtt na waay